gis ngeen ñu ngi fii ci arène nationale combat bi doon dox ci diggante ki nga xamante mooy Jackson ak Hercule combat bi jeex na waaye ñu ngi taxaw ak le grand promoteur Jam borom parcelle Jam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu fépp fu ñu doomu aadama di suivre ci site yi fi nekk yëpp ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di la nuyu. Mhm. waaw comme ni nga ko waxee tey combat bi. si diggante Hercule euh, gis nga lamb ji nu mu demee. Mhm. ñun nag li ñu njëkk a déploré di ko wax ci làmbu dañ am sañ-sañ di wax ci lamb. gis ngeen yéen ñëpp heure bu jot. 19 mhm. heures moo jot ñu soufflé grand combat bi am na démb am tey muy réglement boo xam ne réglement bu bees a CNC jël ko. ñun nag di ay promoteur di ay bayer jël suñu xaalis di ko def ci làmb mhm. képp koy amateur wala képp ngay dund làmb xam nga ne li am jaaduwul ay nit mënuñu génnee seen alal def ko ci làmb yow nga toog sa bureau kilim wër la nga xëy di jël décision yu la neex réew mi nag lu ñu baal sax njiitu réew mi injustice baaluñ ko ku fi jógee mënuñ ko may Bira Sène désormais promoteur yëpp ñoo am war a am fulla war a am fayda xeex seen i intérêt d'accord ku mu neex am nga nekk ci kuréel gu la neex ñun nag dafa am ay kilifa yu nekk ci làmb ñu am si ñoom yaakaar même bu fekkee ne jiitewuñu sax ñun am nañ si ñoom yaakaar am nañ yaakaar ne lépp lu war a yàq làmb war nañ si mën a jóg wax ci suñ gisee na nag ñoom luy yàq làmb ñu ngi koy gis te ñoom duñ ci wax ñun ñu war ci nekk victime dañuy taxaw wane suñu bopp xam ne ñun ñu topp ci gannaaw nit kenn du ñu neewal doole te ay jàmbaar lañ waaye li am ci diggante démb ak tey senegal gi yëpp di ko gis àdduna yëpp di ko gis quatre heures pire nga bëgg a soufflé làmb jàmbur balaa dix neuf heures làmb ji tas promoteur bi perte mhm. yow nga nekk sa bureau ku dem ba tëggatoo keneen mooy ñëw ngeen accueillir ko ne kooku amatul lool jaadul mhm. na ci nit ñi wax man de sama làmb xaw ma làmb kan kenn du ko soufflé quatre heures fii. kenn du ko soufflé quatre du ma tëgg làmb def sama xaalis kenn du ko soufflé quatre heures du am. mais est-ce ñun loolu xamatuñ sax lan lay ñor dafa mel ni stade bi dañ ko jël moomale ko làmb te làmb amu si cër tey ay joueurs nga fi fekk ñooy dem ci salle de VIP tey stade boo bëgg a laal ñu ne la non lamb am nañ stade te lamb ji stade bi promoteur yi yéen sax amu leen ci cër. dix neuf day jot ñu fay lamp yi wala courant du coupé nga ñëw ñu ne la demal jënd gaz wala lamp yi dafa fay ay affaire yu ci am yoo xam ne kenn mënu ko wax ñëpp bëgg a seetaan bàyyi kenn ku ñu laalul sa intérêt doo wax dafa jot lamb yëpp xeex ànd xeexandoor seen intérêt muy promoteur muy amateur muy lépp. làmb ñu ko yàq tey bëree am na fu nekk ci aduna suñu doon bëree rek àdduna bi duñ seetaan bëree Sénégal ñun ñu dàq bëree ñoo fi nekk ba làmb buñ koy ko culture bi ak aada bi la soo ñëwee soo ñëwee nga ne benn mbër dugal ay butéel ci biir géew dugal gàllaat ci biir géew lan la ñuy def ak temps bi lii du affaire yëfu professionnel ku ko ku ko ku ko si ni nga ko nga dem defi leneen ñëpp taxaw nañ wax si règlement boo xam ne jaaduwul baaxul te règlement buñ gis nag buñ fi teg ne duñ leen ko teg léegi promoteur yi ñoom ñoo nangu loolu ban promoteur a ko nangu ah, li am démb tey gis nga ko promoteur yi waruñu ko nangu ndax nit ki waroon nangu lu lay lor CNG tëgg nañ làmb perte xam nañ li ci tëgg làmb dañ leen denk làmb ji pour lambu ji dox ndaw ñi bëree avancé jëm kanam yaa ngi dégg dafa am loo xam ne dafa rafetul jaaduwul làmb sport la benn ministre sport moo jiite football moo jiite lambu football day am ba deux heures du matin yéen a koy gis. Mhm. di am ba pour lan ñu a taf tafee làmb ji benn une heure luy jàpp ne mooy solution ñu jox nit gëdd bi moom ak bu ñu moom man sama làmb dama koy wax àdduna yëpp di ko dégg du ma jël sama xaalis def ko ci làmb état jàppale wu ma ci dara. benn oh, man promoteur am moo tax ma koy xeex. waaw samay morom gisuma leen waaye man oo naa leen ci ñëpp. mais a ngi ciy waxtaan yéen promoteurs yi. nag xam xam nañ am kon ku ci nekk li naqadi sa morom moo lay neex li neex sa morom moo lay naqadi te àdduna du noonu ay nit même buñ bokkul gis-gis nañu ànd défendre seen intérêt fii koo fi mu yëngu. Mhm. promoteur yi lu gis lu leen CNG teg ñu teg ko ñu nangu ko pour lan nañ gëm suñ nañ gëm suñ bopp tëgg lamb du force. promoteur yi amuñu kuréel. dama ne man li may wax nii. Mhm. kuréel gi fi nekk si Pape Abdou Fall koy commencé mooy président promoteur yi Gaston Mbengue sunu père. ñoom ñoo la fi yàlla teg. nañ ànd xeexal ñu ko suñ ñu ko mënta xeexal man damay taxawal association seen promoteur te dama koy xeex bañ ma ci dara te maa koy njëkkee man sama lamb duñ ko soufflé 4 heures bind leen li ma leen wax. du ma tëgg sama lamb def sama xaalis ñu koy soufflé 4 heures. kenn du ko def. pour lan ban teel teel kan la arrangé arrangé wul benn promoteur. mooy kan mooy mooy kan mooy kan. waaw ah, da ngay non man xam nga li may wax nëbb ma ko. sooy wax da nga naan ma promoteur bii teel a taal. waaw Serigne Modou Niang. na moom loolu moom la arrangé. waaye est-ce que tamit amul ñoo xam sama sa léegi dama lay laaj. lamb am ñu soufflé combat bi quatre heures. Mhm. yow nga añee sa kër war a jógee sa kër gis nga arène nationale fi mu nekk ban heure nga fi yegg. gis naa dem kuñ tuddee drapeau. combat am ñëw boo ñëw stade nga ñëw fekk ñu soufflé deux combats trois combats da ngay dugg. ban kan mooy ñëw ci stade di seetaan sa mbër. sa waay CNC dafa am benn règlement bu ñu génnee ne benn combat mbëri ndaw yi wàññi nañ temps bi d' abord cinq minutes dalul jaadu nga fay nit ay million ay ponkal ñu ñëw fi ñu naan leen ay la ñuy bëree nit booy def benn règlement da xool solution temps bi vingt minutes la woon bi ñu koy yokk di ko def trente minutes dafa am lu tax ñu def ko niil moo taxoon ñu def mhm. ay maxi niil moo taxoon ñu yokk temps bi la fi maxi niil gën am nga yokk temps mhm. minutes trente minutes di niil ngay wàññi waaw xaar leen am na mbëri mag yi bëri seen combat dootul yegg fii man man du ma wax ci arène nationale CNC CNC bi laay wax. CNC bi laay man CNC bi laay wax. CNC bi yoruñ arène nationale arène bi arène bi amagul directeur ñëpp a ko gis man si CNC laay wax CNC décision yi ñu jël ñoom ñooy mar mar margo lamb ji. décision bi CNC jël mooy dañ bëgg ray rey lamb bëgg a sacrifier mbëri te lamb président ay ndaw ñoo ci nekk ay xale ñoo ciy liggéey facteur de développement lañ wax lamb amuñu sponsor jàppale wuñu kenn. ay nit ñoo jël seen xaalis di ko góorgóorlu xamul fu ko nit ñi jëlee dëkk bi nag du dëkku jaay doole wala ay paa xam ne dañuy dajaloo benn groupe bëgg a def nit ñi lu leen neex kenn du ko fi seetaan li fi jëlee seen i morom bu ñu réglé wul moo leen fiy jëlee mais su ma ay mandat bu jeex ministre bi mooy fal man du ma ci wax man sama lamb quatre heures fii a ngi fi maa ngi fi kenn du ko soufflé wala prison la may du ma jël sama xaalis def ko ci lamb ñu may wax mënoo jël sa xaalis benn groupe ñëw toog dajale seen bureau clim wër leen quatre heures ñu suuf la lamb ji nga pare waaye di kenn boo perte kon de dëmbale loolu jaaduwul. dix neuf heures dix neuf heures lamb jeex fan la am lamb bu la ko denkee da ngay ñëw waxtaan ak ñi ñu ko yor ay intellectuel ñu jël leen ku munul seere lamb nga dem seere ji say bureau. ñun ci dëkk bi lañ dëkk nekk ay ndaw sàccuñu fenuñu dañuy liggéey teg ñu mbir ci yoon ku ñu respecté ñu respecté la ku ñu respecté wul ak koo mën a doon soufflé lambu kër promoteur fii quatre heures jaadu du dëgg du yoon. mayuñu kenn dara da ngay fay frais d'organisation fay lépp pour lan dañu respecté doomu aadama yi. ñaari promoteur yi tëgg démb ak gis ngeen seen lamb ni ma yéen yéen a ngi fi ay journaliste yéen mhm. yow balaa ñëw ñaata combat la raw bari na lan démb gis naa la ku ñu tuddee drapeau mu ñëw fekk combat bi lu tax lu tax loolu lu tax léegi ngeen léegi mënuñu taxaw xool li defar lamb lamb xoolal liñ ci nekk dafa bari yéen ci lamb ngeen yaakaar même bu ngeen ci yaakaaru yéen a ngi ciy liggéey ñaata ndaw tay ñoo nekk di liggéey ci lamb yor ay site ñaata nit ñooy jaay fii ñaata nit ay ay yoo xam ne ci lamb lañ yaakaar benn a toog bëgg bi di maa ngi lay lancer appel yow la fi yàlla teg yaay ministre bi jëlal ci lii di son comme CNC respecté wuñ promoteur yi man maa ko wax joxuñu kenn cër dañuy xëy génne seen di son appliqué ko promoteur yi ànduñu ñenn ñi dañuy bëgg a éliminer ñenn ñi te loolu du dëgg du yoon nit warul jël xaalisam xamoo fu mu ko jëlee ngay soufflé fii làmb ñoom seen kees daaw am nañ chiffre d'affaires cent soixante dix millions nañ tëgg làmb benn yoon lañ fi tëgg perte tëggaatuñ léegi nit ñi di tëgg duñ leen respecté duñ leen jox euh, cër bi ñu moom man bu yeboo ma bàyyi tëgg lamb waaye sama lamb moom benn combat laa tëgg le 11 décembre incha allah duñ ko soufflé 4 heures. jeex na lu nekk jaral na